bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu fu ñu leen nuyu muy fii ci RFM 94 point 0 ci dakaar ak ci ay banqaasam seen jotaay bii di njàngaleem diine fii ci RFM ngeen baaxawoon cee ànd ak ñun ak suñu mbokk alimaam Saas Mor Thiam ah tey nag yàlla dogal mu dem fële ca barab yi sellee macha allahu taala ñaan ko yàlla mu dem ci jàmm fële ca màkkatal mukarram ñëwaat tam ci jàmm incha allahu taala ñaanal tam ujaaj yépp rek yàlla dogal ñu war a dem aji incha allahu taala loolu xewal gu rëy la xewal gu rëy rëy la yàlla defal la ndimbal defal la ak njàppandal ba nga am ak wér am alal am ak man goo mën a demee ca màkka def sa farata mooy alxajj te mooy aj màkka mbokk yi bala ñuy tàmbali waxtaan bi di njàngaleem diine ci RFM ñu beral tam wax dëgg yàlla ay ay nuyoo ak i ñaan ak i ziyaar soppay RFM rawatina nag soppay njàngaleem diine nga xam ni wax dëgg yàlla dañuy safoo lool njàngaleem diine buñ ci nuyoo suñu uh, wayjur suñu yaay di soxna Sini Fall fële ca Kër Massar dana mën a yóbbaale gi jigéen ñëpp rek incha allahu taala waaye tam bu ñu nuyoo tam uh, monsieur le ministre muy sëñ Mbacke Ndiaye moom tam di ko baax uh, ma koy tuddee le mur de le mur de lamentation nga xam ne moom ñu baree bari wax dëgg yàlla dañuy jàmbat jëme ci moom ami soxla ñi amee jafe-jafe yëpp dañuy jàmbat jëma ci moom te jiitewul réew mi loolu dafay wane kon ni nit ku baax la ku bëgg lu baax la yàlla na yàlla taxaw ko sàmm ko ñu nuyu ko nuyu itam ay mbokkam yëpp moom sëriñ Mbàkke Njaay incha allahu taala waaye itam duñu fàtte itam euh, El Hadj Diouf Sopp da baax ku bëgg diine ku bëgg lu baax ñu jaar ci moom itam nuyu waa GFM yëpp rek teg seen nuyoo ci loxo moom El Hadj Diouf Sopp baax incha allahu taala tey nag seen jotaay bii di njàngaleem diine ñu fi nekk di jéem a nam nabi ndax Oustaz Mor dem na ca barab yi sell ca Makka incha allahu taala yal na yàlla def mu àgg ak jàmm ak salaam te dellusiwaat tam fekk ñu ci jàmm ak salaam incha allah moom yàlla dëggalu ko waaye loolu neex borom bi subhaanahu wa taala na ñëpp ñaan ak incha allah déwén moom ñu defe ko na fële ca Makka jotaay bi di njàngaleem diine incha allahu taala ànd ak Oustaz Mor xam naa xel yëpp dem ci Makka. ndax ñu ngi ci ay heure ñu ngi ci ay weeram ndax xam nga ni aj màkka mbokk yi nañ bàyyi xel na aj màkka nag euh, du voyage boo xam ni touristique la det euh, ak jaamu yàlla la ndax xam ngeen ni lislaam juróomi ponk la am juróomi pilier nga xam mënta ñàkk moo tee ji muy lislaam daf cee bokk nag nga dem aji màkka benn yoon ci sëg dund mooy benn yoon ci sëg dund la aj màkk doon farata ci jullit bi jullit bi moo xam muy góor moo xam mu jigéen bi ko man bi ko man ma rafim toll nii ay millions doomu aadama ci ay jullit ci àddina bi ñii dem nañ ba àgg nañ ñi ñu ngi waaj pour dem ngir lan joxe seen farata muy muy aj màkk muy aj màkk loolu moo tax ñun na comme yàlla dogal ndimuñu tam ñuy jéem a ànd ak ñi ujaaj incha allahu taala fii ci rajo bi di jéem a fàttalante ak ñoom li nga xamante ni mooy leen yóbbu muy jaam yàlla gii di aj màkk tam lii tax buñ ajee mu baax ci lislaam ak itam aj màkk gi ñuy nar a waxtaan incha allahu taala kan la war ci lislaam ak lan mooy ay farataam muy ponk yi nga xam ne soo ci bàyyee benn sak aj màkk moom dem nga waaye baaxut ci lislaam kon ñu ci ànd ak yéen incha allah te di ci fàttalante ak yéen tey ci lañ jëmee sun jotaay bii di njàngaleem diine muy aj màkka ak la ca aju incha allahu taala mbokk yi aj màkka day dafa doon farata farata joo xam ni yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko farataal ci ay jaamam yi ko man tax ma ci alquraan ni audu billahi min alcheytaan arrajim walillahi ala annaasi xijju man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun an alquraan wax borom bi ca suuratu Ali Imran mu ni yàlla mi moom nit ñi moo farataal ci ñoom ñu war a dem ajal ko néegam bële ca Makka koo ci xam ne nag mu dakaa man man na ko ci wàllu wér-gu-yaramam am na la bonne santé alhamdulillah man na ko ci yoon wi am na sécurité mu problème yoon amul ñuy addu kalpe amul ay agresseur yoon wi am na jàmm waaye tam mën na ko dañuy am nag am na lu mu jënd billet aller retour l'argent de poche argent poche bu mu fay dundee ba kere mu ñëwaat du am benn problème njabootam tam ni duñ tumuraank ñu ngi ci jàmm ju baax ñu ngi ci jàmm bu baax nga xam mën na ko ci poosam mën na ko ci poosam mën na ko ci yoon wu am jàmm tam mën na ko tam nag ci wér-gu-yaramam mbokk yi kii nag la aj màkk doon farata ci moom bu ci boole doon ab jullit bu ca boole doon ab jullit ba pare doon mu kàllaf majeur ci lislaam doon nit njaay ànd xelam kii la aj màkk doon farata benn yoon ci ak dundam waaye borom bi nee na képp ko xam yàlla dogoon nga am lii ma wax am nga wér-gu-yaram am nga alal yoon wi am na jàmm waaye aji woo du wàññi yàlla dara déedéet yow lay wàññi yow lay wàññi ndax si diine manqué na si diine manqué na parce que bàyyi nga ponk boo mën nga ko te defoo ko loolu mbokk yi bakkaar gën a ko rëy ci kaw suuf kon képp yàlla dimbali may la wér gi yaram may la alal yoon wi am jàmm nga mën a aji mànka nga mën a aji màkka lànk demoo di xaar looy xaar est-ce que li nga xaar da nga da nga fa àgg wóorut mën ngaa faatu kon nag boo ko mënee moom gaawal def ko soo ko mënee gaawal def ko yàlla nee nag fekk fekkee da nga ko mën ko nag man yàlla du ma wàññi dara ndax yàlla moom buur la boo xam ni yàlla dëgg mooy buur ku yàlla jaam la ndax moom jaam yi jëriñuñ ko dara dara dara yokku luñ ko dara dara dara ku nekk sa bopp ngay defal. li ngay def ci lu baax nii pour yow la mais pour yàlla ñu bàyyi xel loolu moo la ko digal nga war koo def muy ak jaam yàlla waaye yow lay jariñ nag soo ko bàyyee doo lor kenn sa bopp ngay lor bu fekkee mën nga ko kon nag ku yàlla dogal nga mën a aji màkk ci wàllu wér yaram mën a aji màkk ci wàllu alal am nga ko alal ju ju la mën a yóbbu indiwaat la yoon bi am na jàmm am sécurité vraiment gaawal nga dem aji màkk def sa farat ñu bàyyi ci xel aj makka nag jaamu yàlla yi gën a rëy ci lislaam ci la bokk moom aj makka lu tax ki jàngale lislaam mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne jaam yàlla yi gën a rëy ci kaw suuf yu jaam di defal boroomam jaamu yàlla gii di aj màkk ci la bokk jaamu yàlla yi gën a rëy dafa am bis yonente bi alayhi salaatu wassalaam toog ak saxaaba yi radiallahu anhum jamian benn waay ñëw daal di laaj yonente bi alayhi salaatu wassalaam koy poser ay questions laaj ay laaj yu am solo loolu saxaab bii di abu hurayra radiallahu anhu moom moo ko nettali moon dafa mas a toog ak yonente bi alayhi salaatu ak ñoom saxaaba benn waay ñëw daal di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayul aamaali afdal laaj bu am solo yu baax yi am ci lislaam yëpp ban moo ci gën a rëy ca yàlla seen nga laaj bu am solo ngook saxaaba ñoom la gën la ñuy laaj def ko yu baax yi bari na mu ne ko waaye yu baax yi bëri na ci lislaam mais ban moo ci gën a yàlla ëpp doole fa yàlla yomal qiyaam yonente bi alayhi salaatu salaam ci mën a jàngaleem ni tekk ba mu yàgg mu ni ko tontuwaa ji ni ko imaanun billahi wa rasulihi yàlla li gën a bëgg ci jaamu yàlla yi la ko gënal ci li jaam di def mooy gëm yàlla ngëm yàlla gu wér waaye itam gëm yonente yi seen nga imaanun billahi wa rasulihi d'abord kon li war a jullit moom mi fexe ba imaanam dëgër ngam yàlla wér cëng imaanu saxi ngam yàlla gu wér gu jub fexe ba am ko moo ëppal yàlla solo ci jaam bi ci lépp lu muy def ci ay jaam yàlla ci kaw suuf ndax imaan mooy baas bi ngëm yàlla gu wér mooy baas bi mooy sookal mooy fondement bi lislaam say jëf say jaam yàlla sa yu baax lu mu bëri ba tëggamoo yàlla du la jëriñ day ma xam pënd la day mel ni pënd amul parce amul base mi ngi mel ni kii defar étage am amul fondement waaye kooku day caaxaan buy bàyyi muy wadd daanu noonu nag la ngëm yàlla mel ci mbir yi donc kon gëm yàlla gu wér moo war a jiit julli julli fexe ba ngëm yàlla wér cëng mu gëm yàlla dañ ko war a gëm ci lislaam c'est important li ñuy wax nii gëm yàlla teg ci nag gëm yu yonent yi gëm ni lépp lu ñu wax waxi yàlla lu seen waxi bopp de ñoom dañuy jottali kàddug yàlla dafa mel ni lantinoor ñi xam lantinoor du tey diwlin da nga sotti rek mu jàll yonte kon dañuy jottali kàddu borom bi subhanahu wa taala waaye li ñuy wax du seeni wax ya ñuy digg diggee yàlla moo ko digg yowmal qiyaam ya ñuy tëkkoo nit ñi yàlla moo ko tëkkoo jaam yowmal qiyaam kon ñoom dañuy jottali kàddu yàlla waaye waxuñu seeni wax ñoom yonente yi alayhimu salaam beneen bi waajo ne ko waaw ginnaaw bu ma xamee ne gëm yàlla gu wér ak gëm yonent moo gënal yàlla ci kaw suuf ci lu jaam di def waaw lan moo ci toppaat ci yu baax yi lan moo ci gën a laat yàlla ginnaaw gëm yàlla ak gëm yonent yi waa ji mooy laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi lan la ko wax mu ne ko summa maadaa waaw léegi nag ginnaaw ngëm yàlla ak gëm yonent yi lan moo gën a laat yàlla ci kaw su ci lu jaam di def di ko defal boroomam mu ne summa jihaadun fi sabilillahi lu am solo gersent jihaat ci yoon yàlla jihaat ci yoon yàlla mooy xeex ngir lislaam jëm ca kanam lislaam tas ci àddina bi ñëpp doon ay jullit jihaat ci yoon yàlla jihaat nag bari ay forme forme jihaat yi am jihaat ci kàddu am na jàngale lislaam jottal kàddu borom bi fàttali nit ñi njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam jihaat ci sa kàddu ak jihaat ci sa pilim xalima stylo bind loo xam dafay jëriñ lislaam luy jëriñ jullit ñi wane tam liy tax seen diine am problème bañ man koo bàyyi kon jihaad ci wàllu xalima sa wàllu bind sa loxo bind lu am njëriñ waaye def ger seen tam nag bu ko laajee bu ko laajee mais loolu nag kilifa moo koy moo koy décrété mooy wax nañ nañ nañ jihaad mais ay individu noonu rek doo tëb di jihaad non loolu du lislaam anarchie la non non anarchie la lislaam bëggut pëcc ñu bàyyi ci xel beneen bi mu ne ko summa maada léegi nag ginnaaw tam jihaat ci yoonu yàlla lan moo gën a laat yàlla ci kaw suuf ci li jaam di defal yàlla ci lislaam ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ko summa xajjun mabruur bi moo ñu soxal ci mbir mi summa xajjun mabruur aj gu yàlla nangu aj gu baax a ah, mu jafe loo nag mbokk yi nit mën naa dem màkk di fois dem aji màkk aji màkkaam dara mbaaxu ci lu mën a nekk la kon nag moto tax yonte bi ni thumma xajjun mabruurun léegi nag aj gu baax ci lislaam kon nag mën naa xam ki jóg ni dafay dem aji war naa fexee xam lan mooy tax ajam baax ndax temps dafa cher bàyyi sa ay liggéey bàyyi sa ay njaboot dépense alal judul jeex togg ab coono dem màkk ñëwaat te sa aj nangut mbokki kooku pertement bu rëy la pertement bu rëy la lan moo la ci mën a musal nag déglu boroom xam-xam ñu wax nu ñuy aje ñu jëlee ko nag ci aju gu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jaam bi lépp lu muy def mbokk yi ci ak jaamu yàlla lay tax mu wér mooy mu baax lay tax mu am xabool yàlla nangu ko ëllëg ñu fay ko ci kanam borom subhanahu wa taala ñaari mbir la ñaar mat naa xam mën naa xam ñaar yooyu mooy ban ak ban al ixlaas wal mutaabaatu mooy def ko te yàlla dong tax yàlla yàllay kese mu jafe lool nag ci àddina bi ma suñ réew rek jafe lool ci àddina bi yàllay kese utoo ci ak alaaji utoo ci ak ajaratu utoo ci bëz utoo ci tur utoo ci daraja wutoo ci dara danga ko def ngir jëmmi sa borom subhaanahu wa taala yàlla kese moo tax nga aji benn ñaar mooy nag roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenam aje woon kon nag faw nga déglu kon boroom xam-xam yi ñu wax la yonente bi alayhi salaatu wasalaam naka la aje woon ajaam gam ajoon alay salaatu wasalaam moom benn aj la aj ci dundam moom yonente bi sallallahu alayhi naka la ko aje nag mat naa xam lool mat naa xam lool roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam aje nam aje woon moom alayhi salaatu moom alayhi salaatu wasalaam léegi nag xajj mabruur mooy lan boroom xam-xam dañ coo gëstu wax ci ay leeral ne xajj mabruur mooy lii mooy lan alxajju almabruur huwa alxajju alladi laa yuxaalituhu ithmun seen nga mooy aj goo xam ni defoo ci bàkkaar a ah, ak a jafe aj màkk ba ñëw defoo fa benn bàkkaar bu mag eh yëmbut yëmbul de yàlla xam na ko tooñoo fa kenn tooñoo sa borom tooñoo sa morom ah li nga nekk màkk yëpp di aj tooñoo sa borom tooñoo sa morom ba ñëwaat senegal loolu mooy xaj mabruur ah xam nga mbokk yóbbut kon nag ñu góor góorlu mais nag li man lu mën a nekk la mën naa nekk de lan la laaj volonté jom ak xam ne la tax a jóg kese la laaj mooy tax nga dem ba màkk ba ñëwaat doo fa def benn bakkaar bu mag xoola fa lu xaraam jëfoo ko fa waxoo ko fa tooñoo fa kenn kenn kenn ba ñëwaat laaj na taxawaay laaj na <laughs> laaj na jom kook kook mooy sama waa ji <laughs> Matar Samb ngi laa ziar ma ngi noonu kon macha allah taala kon loolu mooy xaj mabroor aj goo xam ni eh, bi nga jëlee sa ay bagage tàggu sa ay mbokk walaay ndeysaan walaay ndeysaan dem nga maak ba ñëwaat ci Sénégal gi de foofu benn bàkkaar bu mag ak aj jafe mais nag mën naa nekk nag taxawaay la laaj rek taxawaay rek la laaj ñu bàyyi ci xel wala boog ñu ne alxaj mabruur an yarjia alxajju aw alxajjatu zahidan aw zahidatan fi dunia raagiban aw raagibatan fi l axirati wallaay ndeysaan mooy ajaa bi wala alaaji bi en tout cas ki aji màkk góor wala jigéen bi mu ñibbisee bi mu jógee màkk dafa gën a xër ci yàlla dafa gën a xër ci lu koy may yomal qiyaam gën a woyofal àddina gën a cof addina ci xolam kooku mooy ko xam ne ajam xaj mabrur nga xam bi mu jógee màkk moom dafa gën a daf dafa gën a jaajowaat ci boromam subhanahu wa taala lépp luy taxate di yomal qiyaam léegi ci la ne léegi bàyyi na détail léegi bàyyi na détail bàyyi na wax yu sew bàyyi na jëf yu sew bàyyi na col gu col col gu bon col gu bon wala col gu rafle léegi moom dafa bëgg a nekk na jullit xàqan bi mu jógee màgg loolu mooy ay actam léegi ah ah kii kon léegi moom xajjam ajam léegi nangu na waaye nag aji màkk ba ñëw gën a sàggan ah sag aj nangu wut de yàq nga temps yàq nga xaalis waaye sag aj nangu wut parce que say acte say jëf wane wu ko wane wu ñu bàyyi ci xel kon loolu tam lu lu lu lu am solo la ñu bàyyi ci xel mbokk yi léegi nag aj Màkka googu dafa am ay arkaan ay ay fondamentaux yoo xamante mënut a ñàkk baas la ci mbir mi soo ko bàyyee sa aj aj moom zéro baaxut kon nag mën naa xam aj Màkka itam yow mi déglu est-ce que war na la wala waru la topp ma incha allahu taala da nga xam war na la yow mi déglu wala waragu la ñu bàyyi ci xel. benn bi tam mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka la aje woon A ba Z ba ma toppee incha allahu taala dinaa ci dugg ak yow ba lépp ba mu jeex bu soobee yàlla ñu bàyyi ci xel. léegi liy tax nag euh, aj màkka war ci jullit góor wala jigéen ay mbir la ay mbir la xam naa ñu fàttali mbokk ñu ko bëgg dugg mën a jaar ci ci ci 88. 628 14 14 wala 88 628 14 15 ci la ñuy jaare pour dugg ci njàngaleem dina ci RFM incha allahu taala Matar gaa yi ko bëgg dugg mën a jaare ci ci ci 88 628 14 14 wala ñu jël ko ko ba xam eh, ma ngoog waa kon mi ngi noonu incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mel na ne génn na xam naa kon incha allahu taala incha allah kon ku bëgg dugg mën a jaar ci numéro yi ubbeeku na ci ci 88 628 14 14 wala 88 628 14 15 ci la ñuy jaaree pour dugg ci njàngaleem dina ci RFM incha allahu taala léegi ki nga xamante ni bi nag moom may déglu bëgg a xam ba moom aji màkka war na ko wala waru ko na ma déglu mbokk yi aj màkka liy tax mu war ci doomu aadama jullit nit ab jaam góor nga walla jigéen nga ay mbir la bi njëkk mooy faw nga doon jullit mënta ñàkk aj màkka pour mu war ci yaw nekk ci obligation obligatoire war ci yow am sañoo ko bàyyi faw nga doon jullit moo ci jiitu kon nekkal muslim wala muslima doon jullit benn ñaar aj makk pour mu war ci yow faw nga doon mu kàllaf majeur ci lislaam xam mag nga ci lislaam mag ci lislaam nag euh, ajuwul ci jëmm waa ci ay at la aju wala ci ay signe ay signaux ay mandarga ci la aju defe naa waxoon nañ ko mbokk ñu doon topp yëpp jaare nañ ci incha allahu taala kon doon mukallaf ci lislaam mag ci lislaam majeur ci lislaam mooy tax aj màkka war ci doomu aadama muy ñaar ñett liy tax aj màkka war ci yow mooy nga doon nit ñu cocc ànd ak sa xel amoo problème xel nit njaay nga doon nit cocc cocc ànd ak sa xel mu mat macha allahu taala mooy tax aj màkka war ci yow ñett ñeent mooy nga mën ko al istitaaxatu mën ko mën nga ko ci sa wàllu wér-gi-yaram amoo malaade bu la téemaan dem aj màkka mën nga wér-gu-yaram macha allahu taala mën nga ko ci sa wér-gu-yaram ñaar mën nga ci sa poos am nga paas bu la yóbbu ak bu la delloo si loo joxe dépense fekkee borom kër nga ba ñëwaat ak nag yoon wi am sécurité am jàmm nga wóolu sa bakkan ah lii nag mooy tax mbokk yi nag yi ba daje ci moom aj màkk léegi nag war na la ma baamte ko ab jullit nga mu kàllaf nga ànd nga ak sa xel te mën nga ko kon léegi war na la beneen bi ñu ko doon juróomee la léegi bëreetut mooy nga nekk as gor léegi ñëpp ay gor lañ dox jërut lim jërta lim kon ñeent yi daal comme daje ci jàppal ne moom léegi nag aj màkka faratala la ci yow fardu aynin kenn du la ko mën a defaaleel déedéet déedéet bu ñëpp aju woon ajuwoo du tee ba tey nag aj màkka yow war na la ñu bàyyi ci xel kon ku bëgg dugg mën na jaara ci numéro ubbeeku na ci 88 et 628 14 14 wala 88 628 14 15 ci la ñuy jaare pour ànd ak ñu jotaay bi incha allah ci njàngaleem diine ci RFM incha allah kon loolu mooy yi tax aj màkka doon farata ci yow muy ñeent yi ma la wax léegi nag aj màkk tam am na ay farata bu la xasee war ba pare nag am na luy tax boo ko defee mu baax soo ci bàyyee benn mu yàqu kon mat naa xam. moo tax ñu ut ay guide ñoo xam dañ lay jàppale di la teete su fekkee ne amoo guide te dégg rajo bi tam nag rajo bi mooy sa guide yow incha allahu taala soo ma toppee rek ma wax la détail yëpp A ba ci naka lañuy ñuy aji màkka tàmbali ba jeexantal bi incha allahu taala bi ci njëkk ci farata tey nga xam ne soo ko bàyyee sa aj màkka baaxut mooy al ihram armal beneen bi mooy assaayu bayna safa wal marwa kooku farata ci aj ajj dox wala daw diggante safa ak marwa itam farata soo ko bàyyee ci aj màkka wala ca umra ba baaxut ndax bàyyi nga ponk bàyyi nga farat ñaar ñett tawaaful ifaadati wër bi ñuy wër kaaba gi bisu tabaski bi wër gi ñu wër wër kaaba gi tawaafu ifaada moom mu am nag ay tawaaf yu am yoo xam ne bokkuñu am tawaaful ifaadati am tawaaful umrati am tawaaful qudumi ñett yi benn bokk ci sa morom mais nag bii farata fii may waxee ne ci aj gi mooy tawaaful ifaadati wër kaaba gi juróom-ñaari yoon kooku tam mënta ñàkk mënta ñàkk ci ci xujaaj bi mu def ko su ko defut même bu amee empêchement defe ko tam ajam yàqu na il faut nga def ko aj il faut nga wër kaaba gi juróom-ñaari yoon tawaaf ifada beneen bi mooy alwuquufu bi arafat wala arafat taxaw arafa bis juróom-ñeenteel tam nga taxaw ci taba ci weeru tabaski nga taxaw arafa kooku tam nag farata la soo ko bàyyee boo defan yëpp ba mu des taxaw arafatam sax aj moom yàqu na déwénate rek incha allah kon lii mooy farata yi kon ki yàlla dugal mu mu nar a aji di déglu rajo la boobu maa ngi ca màkk te koy déglu tam na bàyyi xel yii moom mooy farata yi mooy les obligation obligatoire nga xam boo ci bàyyee benn mën ngaa dem mën dem sax aj baaxut mat naa xam kon mu juróom yooyu mooy ihram mooy yéene bi nga yéene. armal mooy yéene rek yéene bi mënut a ñàkk dox diggante safa marwa walla daw ko wër kaaba juróom-ñaari yoon tawaful ifaada laa wax ak taxaw arafa yii mooy farata yi nga xam ni képp ku aji màkka na ko bàyyi xel su ci bàyyee benn ajam moom yàqu na léegi détail bi nag mooy lan mooy ihram lan mooy armal armal mooy da ngay yéene def omra omra nga yéene wala nga yéene boog aj nga yéene aj kese wala nga yéene ñaar yëpp lëkkale ko yéene omra ak aj loolu mooy ihram mooy dem nga fa ñuy yéene ca miiqa mi miiqama mooy fi ñuy fase fi ñuy yéene bu dee ci suñu Afrique bi moom ñun aljuhfa mooy rabir fa la ñuy armale fa la ñuy armale kon boo fa demee nag la nga yéene mooy benn nga yéene man damaa yéene rek umra kese wala man damaa yéene aj kese walla damaa yéene umra ak aj ñaari plat yéene lëkkale ko maanaam détail dafa mat dafa dafa mat a xam parce que dafa am nañ tudde xajjul ifraat xajjul qiraan xajju tamattu'i yii moo am ci lislaam ñetti façon aj yii moo am boo ci def da nga ko yéene nag kon mat naa xam moo tax mbokk yi aji màkka laaj na alal wante laaj na xam-xam nag c'est important aji màkka moom laaj na ñett laaj na doole laaj na xam-xam laaj na alal nag mais laaj na santé wér yaram kon ñeenti yi moom ci base yi la bokk ci ki aj mu bàyyi ci xel am wér yaram am alal am xam-xam am doole dafa dafa am solo lool dafa am solo trop même fekk amoo doole tam àndala ko am doole bu fekk amoo xam-xam itam àndala ko am xam mu lay guider mais su fekk amoo alal itam ba tey àndala ko am alal ku la mën a jàppale mu yóbbu la indiwaat la xam am nga ko la utul billet aller retour ak la nga fay jëfandikoo ba kër nga ñëwaat ba tey baax na ba tey baax na kon yooyu moo am mooy façon aj yi am mooy xajjul qiraan wala xajjul ifraad ifraat wala xajju euh, tamattu yi rek moo am ci lislaam léegi nag yonente bi alayhi salaatu salaam moom ban la defoon tamattu la def moom moom yonente bi alayhi salaatu salaam deful ifraat sénégalais moom bëgg bëgg nañ ifraat mais yonente bi moom dim bi mu def mooy tamattu la defoon alayhi salaatu wassalaam moo tax ñu wax ko am na ci dalil am na ci firnde firnde bi mooy dañ jël ci anas ni malik radiallahu anhu bokkoon ci saxaaba yonente bi alayhi salatu wasalaam taqawoon lool nag ak yonente bi sallallahu sallam lu tolloog juróom-ñeenti at wala fukki at ànd na ko yonente bi moom anas moo nettali nii dama dégg yonente bi alayhi salaam muy wax ni labbayka umratan wa hajja wallaay ndeysaan labbayka umratan wa hajja wa hajjan mu ni man dey dama yéene def ñaar yëpp mooy def omra def aj tamatox mooy ci weeri weeri weeri aj yi muy ñetti weer yooyu muy shawwal weeru korite dil qaada weeri diggu tabaski ak dil xijja mu weeru tabaski yi mooy weeri aj ci lislaam léegi bu ñu xasee naan ndox ci koor gi xam ne léegi wari nañ tàmbali nañ wari fala nag jamonoy jamonoy jamonoy aj ak umra fa lay commencé surtout aj fa lay commencé aj fa lay commencé jamono aj commencé na léegi kañ lay jeex heure bi bisu tabaski bi ci lay yem kon diir boobu yëpp yow mën ngaa def sa aj ba la neexee ci kaw ngay def tamattu wala ngay def xiraan mooy lan mooy danga fas yéene yow def sa umra ci biir weeri aj yi bu sa umra jeexee nga def aj tegaat ci benn nga yéene ko ci benn yéene nga yéene ñaar yëpp bu sa umra jeexee nga daal di yeewee ko mooy nga summi yérey ku ku armal léegi nag bu ñu àggee ci yow mu tarwiya muy bis juróom-ñetteel ba ci tabaski nga defaat sa beneen yéene aj ba tax yaa ngi ci weer aj yi def nag sa aj nga xam ne yow benn jamono nga dem màkk def ñaar yëpp lu mooy tamato yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom loolu la defoon ci dundam tamattu la def ndax moom benn yoon la aj yonent bi alayhi salaatu la aj ci dundam benn yoon la aj mooy xajatul widaa ngay dégg moom li la defoon tamatoo la def dafa def omra pare ci omra bi tegaat ci ajam muy ñaar yëpp def ko ci benn jamono ci yenn weer yi ñetti weer yooyu ci la ko def alayhi salaatu wasalaam kon nag loolu boo ko may def ba tey baax na yow wala nga def xiraan xiraan mooy dangaa yéene aj ak omra yëpp ñaari nga lënkale mais nag ki def xiraan moom day joxe xëdd yu mooy day rey xëdd yu naka noonu nag ki def ki def tamattu itam tamattu itam day rey xëdd yu mais ki def ifraat moom nga xam aj kese kese la yéene moom tegu ci omra kooku moom doray xaddiyu doray ñu bàyyi ci xel kon ñetti façon aj yooyu moo am muy muy muy muy muy muy ifraat ak ak xiraan ak ak léegi nag boo ci def war na feeñ ci sa labbayka bi ngay labbayk da ci war a feeñ war a feeñ de euh, labbayka labbayka allahumma xajjan kooku mooy kii def ifraat moom loolu lay wax labbayka allahumma xajjan moom aj rek lay def labbayka allahumma xajjan wala nga yéene defee sa sa armal léegi soo paree ngay soog di wax nag labbayka yu ba yi mii nga xam ñëpp koy wax moom mooy labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka la sharika lak am na ci yokk laa sharika laka labayk kon bi moom ñëpp koy wax waaye nag boo def ihram la ba pare nga xam yaa ngi soog soog def sa ihram sa yéene soo pare nag li ngay wax day uute selon li ngay yéene li ngay def parce que fekkee kuy def def ifraad la day wax labbayk allahumma xajjan rek wax parce que moom aj rek la yéene aj rek la yéene bu dee ki nga def tama moom labbayk umratan mutamattian biha ila alxajji lay wax labbayka allahumma umratan mutamattian biha ila alxajj parce que moom ñaari la yéene dafa def umra pare teg ci ajam moo tax mu wax loolu bi muy door a fas yéeneem comme dafa yéene def ñaar yëpp wala boog nga wax ni labbayka allahumma umratan bu dee def umra loolu kese lay fa lay yem labbayka parce que umra kese lay def soo paree nag ngay soog di wax nag sa labbayk bi nga xam ne moom pour ñëpp ko war di wax ñu di ko wax loolu day wane dugg nga ci dugg nga ci yéene nga aj bi wala yéen nga aj ak wala yéen nga umra umra kese kon loolu la ñu bàyyi ci kon lii mooy yi nga xamante ni bii moo aju ci xeetu aj yi am ci lislaam wax naa tam farata yi nga xam ne moo mënta ñàkk ci kiy aj mu xam ko def ko ndax mooy tax ajam baax inchaa allahu taala wax naa la itam ki nga xamante ni bi moom moom la aj màkk war ci moom charte yi daje ci moom ba aj màkk doon farata farata ci moom kon lii mbokk yi mbir la yoo xam ne mën naa mën naa bàyyi xel lool su ko defee tam nag ñu bañ a fàtte rek ni aji màkka moom doonu tukki rek pour def euh, xam nga da ngay da ngay visite ak yooyu déedéet ci la bokk naam ci la bokk ci la bokk waaye nag baas bi moom baas bi mooy jaam yàlla gi nga xamante ne bi moom moo di moo di aj gi ñu bàyyi ci xel léegi nag ñun ñun sénégalais moom euh, loolu la ñu faral def mooy dañuy jaar Madina ci yonent bi alayhi salaatu def suñu ziyaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu lañ miin waaye tam loolu am solo la waaye nag bokkul ci faratee aj de ñu bàyyi ci xel nag lu am solo la lu neex ci xol la moom jaare Madina waaye nag bokkul ci faratee aj màkk faratee tudduma ci Madina yi ma la wax déggoo ci Madina benn yoon waaye nag waaye nag loolu xol bu sedd ko yi la yàlla dafa la tawfiix nga dem ba toog ci yonente bi ci xabru yonente bi alayhi salaatu wasalaam julli ca ca jumaam ja jàkkaam ja nekk ci dëkkam ba loolu tawfiix ju la tawfiix ju la kon nag ki yàlla dogal ma mën a mën a mën a mën a sànni benn benn xeer jam ñaari picc ah loolu mooy lare lare nga xam moom jaar na Madina ziyaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem Màkka def ajam waaye nee naa la nag jaar Madina bokkul ci farate aj màkk su ne neexan tey nga dem Màkka ba ñëwaat doo jaar Madina teewul aj baax na incha allahu taala bu fekkee sàmmante nga ak farata yi ak yi mënta ñàkk ci aj waaye jaar fa nag moom mooy bonus kooku moom lu am solo la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wa salaam léegi nag nga xamante ne bi moom dafa dafa dafa léegi nag nee naa léegi bu dee ñun Afrique moom fii ñun fi ñuy armale fi ñuy fase suñu yéene mooy raabir léegi nag boo ko weesoo dafa fasoo sa yéene moom war ngaa joxe nag tuur deret parce que bàyyi nga waajib waajibatun min waajibaati l ihram bàyyi nga ko mooy ku ne am na place booy booy defe sa ihram boo defe sa xarmal boo ko dépassé nag nga xam ne benn place nga armale bu dul sa place bi ñu la bi ñu lay wutal su boobaa aj gi mën naa baax incha allahu taala bu fekkee yàquwul ci biir aj gi waaye nag bàyyi nga ab ba loo xam ni warugar la du farata waaye warugar la soo ko bàyyi danga koy jàng jàng mooy da ngay da ngay tuur deret pour mën kaa remplacer pour mën kaa remplacer bu dee ñun Sénégal moom jox fa la ñuy fañ tuddee jox fa sax léegi defe naa amatut rabira la moo ko remplacé foofu ngay dem nag fa ngay defee sa julli sa ñaar rakka daal nag yéene li nga bëgg yéene bu dee ko xam ne aj rek lay def mu yéene ajam kese ne labbayka allahumma xajjan léegi dugg na léegi nag boo xasee yéene ba pare te góor nga lépp loo xam ne lu ñuy ñaw la mu mën a wër sab cër danga koy simmi da koy simmi léegi da ngay léegi làmbaay taraxlaayu doo solti ay yére nag comme yére yi ma sol nii déedéet takk ay lam déedéet takk ay jaaro déedéet takk ay montre déedéet sol ay dàll déedéet déedéet léegi lépp loo xam mën naa wër maxit lu ñu ñaw la rek mën a wër ab cër ci sa cër rek léegi doo ko solati yow góor góor laa wax nag jigéen bokk ci góor ci bàyyi ci xel kon nee nga labbayka allahumma hajjan parce que yow aj rek ngay def ifara ngay def nga wax ko ci rabix wala nga ne labbayk allahumma umratan mutamattian biha ila al xajj bu fekkee da nga def tamatux bi yonent bi defoon alayhi salaatu wasalaam loolu ngay wax wala boog nga ni labbayk allahumma umratan su fekkee umra ngay def ba tey loolu ngay wax boo defee sa boo àggee fi nga war a armale mooy sa mooy sa mooy sa miiqa muy fi ñuy place bi ñuy armale ñu ñu bàyyi ci xel boo xasee armal nag léegi góor nga lépp lu ñuy ñaw doo ko solati léegi dangay ngay làmbaay daal taraxlaayu tàmm ne nag di wax sa labbayka labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka labbayka tàmm na léegi di ko wax ndeysaan boo jullee pare wax ko boo yegee montagne wax ko boo wàccee wax ko bu boo door xëy wax ko bu guddee nga wax ko nga xam ne ngay wax rek di ko wax di ko wax wax boo xam ne nag doo déranger nit wax bu yem rek wax bu yem rek incha allah kon day mel ni euh, Aliou ba nee na ma naa naa naa jóg micro bi joxe antenne bi nee na ma sama temps jeex na incha allah xam naa ko ñu nuyu baax saas moom di ko jaajëfal macha allah taala yàlla na yàlla defal ko yéen wu sedd guy dem ci jàmm ñëw ak jàmm. ak ñëw nar dem ñëpp rek incha allahu taala mbokk ñaan ñu déwén incha allah moom ko tey ma ànd ak nag sama waa ji Ba ah ñun tam ñu dem nag màkk aji incha allahu taala kon euh, lépp lu jub ci wax ji ci borom bi la ah lu dëng lañ bëgg mooy fàttali ak mbokk yi mbokk ko xam naa incha allah ñu jox leen dig daje euh, ci kaam tuuti ci quinze heures ak tafsir bi Oustaz Mor Thiam mbokk jërë ngeen jëf